3 heures du matin yu toxtal fanweeri simili ak juróom ci autoroute à péage tolloog toglu ay nit ñu fasantikoo nekk ci njàkkare ngir ñenn ñi la ko waral moo di seeni woto lañu paan ngir ñeneen gendarmerie moo taxawal seeni woto ngir mbir yu fasantikoo ñu ne dañoo ñëw gendarmerie tee ñu xaw ma ay waxu ay bis bu weng la ñu teewee chauffeur bi nanguwul wax nangu ñoo jëlal bis te ñu fii 22h ba léegi nii ba 3h ñoo ngi fii taxaw amuñ benn solution te te te suñ carte grise ne dañu dem xanaa ni kay boo ko jàppee nga mën nga bind arrestation arrestation a dem ba 3 jours mais mënoo mënoo jël nit ki arrêté ko mënoo ñu wax carrément lii lii moo tax nga arrêté ko tamit dëgg neexul Sénégal lii lii lii ba kañ saa yi dañoo bloqué nii mënuñoo dem mënuñoo te bis sama manqué encore bi sama manqué saa yi yàgg na fii trop. ca jamono joojee ñii wutali Touba di wéy di jaaxle ndem nañ yeggam déet. 22 te xam nga loo tamit loo tamit jaaduwul suñu sëfoor gisuñu ko ba léegi ba borom tamit waxuñu dara lu leer dafa jekk jekk dem jël suñu xaalis 7000F ñu jox ko ko gisuñu ko dégguñu ko mu jékki-jékki dem fekk na am na mu fekk na heure bi na ñu dem sax kon mu baax mais booba léegi ñu fay seen mi dafa war a demuñu loolu tamit metti na moo ne de ministère de transports daal na fi taxawal ab système de vérification ngir ñuy mun di taxawu woto yi paan waaye mu mel ni service boobule du faral di liggéey ba heure bi léegi tax ba dawalkat yi du ñu am kenn ku leen dimbali ci waxti wu ni mel. Papa Dagay garage boobee ñu duppee kër sëriñ bi itam taalibe yi la fay wutali bari na lool foofa lañu fa seetlu daal moom mooy lépp lu jëm daal ci wàllug yi ñu ngi ko rek natt diggante juróom-ñaar téeméer jàpp junni muy bokk nag loo xamante ne ni wàññi teef la rek boo xam ne daal loolee di Dakar dem di jot na ko ci indi Umar Thiam ci reportage. garage kër sëñ bi. naam nag lii asamaan si neexul ak poto poto yu ñu nemmee ko ci kaw tali bi gannaaw taw gi teewul nit ñi nag di wutal bile barab. fii moo jiitu ci kër sëñ Tuubaa ci Ndakaaru moo tax ñu bari taamu fi di fi duggee. démb ba tey nag oto yu dem yeneen daal di ñëw topp ci ràng bi xaw a jur pëccëxoo ci kaw tali bi ba police da cee mujjoon a àddu régulateur bi apronte yi ak coxeur yi ñoom ñëpp nag di xàccandoo di dóorandoo ngir client yi ñëw. ba dem ci jàmm ak salaam. mais xam nga comme taw bi dem ba tey fajar gi biis yi bari nañ mais bi mu sawee tey nit ñi dañoo génn du ëpp doole biis yi. amut tamit Versailles amut ëppal amut teg. fii moom ci loolu la ñuy dox duñ ci nangu lool. ndax kër sëñ Touba képp ku jógee fenn ñëw ci kër sëñ Touba dañ laa war a dalal. démb ba tey daal déggaguñu benn chauffeur boo boo xam ne nii pan ci yoon wi. non Ndiaga Ndiaye 3000 lañ ciy fayu biis 4000 ci yooyee njëg nag client yu bari di ci àddu. 4000 francs la rek mais Serigne Touba am na lu ëpp loolu ndax chaque année même su nekkoon 10 sax dañuy paas pour dem màggal. man particulier laa jël moom 25000 laa fay ak samay bagages. prix a ah, ñun da dañuy ñaan sa jur bu ñu fayoo rek ñu am lu ñu fay ñaan leen jàmm rek borom Touba moom bu wootee dem rek. buñ ko tëkkalee ak jamono yi jàll. prix yi nag dafa wàññeeku lool mu mel ni li jëwriñ gi àndoone bis Dakar de dikk ci tabaski bi nag looloo ko waral ne c'est abordable a koy rafetlu ci tabaski gi. comme gouvernement bi 4000 lañ fixé Dakar dem dikk moo taxoon ñu ne woon euh, da bus yi nañ yem ci 4000. ñi nekk ci garage bi nag di ñëwaat ci lu waral prix yi daal di àgg foofu. nitu bi loo yab dara ay benn nga yeb wala ñaar te moom bon bon da nga yeb gasoil lañ ci lekk 120000 60000 60000 120000 kon la ngay dese moom bénéfice su boo yebee 4000 yeb 57 ay 200 nangam mille kon li nga dese sax daanaka ñaari fan képp moo daal di des ñu daal di dem ci màggal tuuba Dakar nag ndank ndànk ñi fu dëkk ñu bari di wutali barab bu sell bi fii nag ci bile garage li war yëpp def nañ ko ngir client yi daal di màggali ci jàmm.